merci de rester fidèle sur la scène des leaders Dakar Plus euh, comme ni ma leen koy defalee toujours à l'accoutumée rek di leen wëral ay ndaanaan tey nag ma andi leen ndaanaan boo xamante si dama leen bàyyi rek ngeen découvrir ko laata loolu ñun leen fi nga xamante moom moo di Moussa Chakour nekk fi nga xamante moom moo di place bi nekk tey nag ma andi leen nga xamante moom moo di Koko Laay Laay suñu nee Koko Laay Laay nag xel yëpp day dem ci nga xamante ni moom moo di buur euh, buur nag nekk acteur boo xamante ni si fii Sénégal yaakaar naa kenn dootu ko présenté ndax liggéey bu extraordinaire bi nga xamante ni mi ngi koy def ci le milieu cinématographique waaye tamit am ci talent lool ba nga xamante ni si rek képp koo xam ne si gis nga ko rek sa xol dafay sedd ma wax koko laay laay wala ma wax buur wala ma wax lan laay wax koko laay laay naa la waaw asalaamaaleykum euh, maa lay nuyu di leen ziar di yëpp di nuyu waa Dakar Plus auditeurs yeeg téléspectateurs maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen ziar di wax ne seen mbokk seen xarit Koxolala mi ngi nii daal waaw di am mbégte bu baax a baax a baax si dalal bi ngeen ma dalal fii nii si Dakar Plus waaw. da doon expliquer un tout petit peu rek sa jaar-jaar ma ko def ñu ko rek. waaw sama jaar-jaar moom wax dëgg yàlla <laughs> neex na neexul. waaw ndax bugg euh, naa école dem ba quatrième secondaire après jaar naa si maçon bu mu jógee si après si laa ñëw si aar bi waaw bu ñëwee si aar bi nag si laa si nekk nii waaw. mais si nag si aar bi nii comme daal. waaw waaw man si aar bi la yor waaw. waaw maçon waaw non du maçon kii sax mais dama àndal sama benn grand frère mu def maçon man ma ko doon takkal fer waaw dafa jàngaloon loolu takkal fer rek après man ma ko doon takkal fer waaw ma ko doon takkal fer noonu loolu mooy maçon waaw koxalaalaay si nekkaan fantastique Moreen ñoo ñoo foofu la juddoo Koxolaay laay. je veux pas dire laay ah ok. maa ngi juddoo Dagana. Euh, Waalo. waaw maa ngi juddoo Dagana quartier bu ñuy wax kaw Dagana fa laa juddoo yaroo fa màggee fa defee daal avant ma ñëw Dakar waaw foofu laa juddoo. am solo euh, mais li nga xamante ne moom moo di enfance Papa Laye buur buur boobu. balaa ñu dugg ci personnage bi nga xamante ne moom moo di Papa Laye la. Euh, li nga xamante ne moom moo di sa enfance. waaw kan nga nekkoon da nga nekkoon benn xale bu turbulent wala ko xamante ni. <laughs> waaw nekkoon naa nag xale bu calme ni bëri dox xam nga aussi tamit complexe li nga boolul bokkuma si xam nga calme xawoon turbulent tuuti mais daal. kii ma daal xam nga nekk xale bu yam daal waaw méttiwul noonu daal méttiwul waaw. waaw sant yàlla rek sama diggante ak sama yaay allah ak sama famille xam nga ni ma dund macha allah tarkala sarkala waaw ay famille bu baax la macha allah waaw. waaw oh, macha allah euh, loolu pour man dina ma ko xam ne loo xam te ne fa jaaree wax dëgg yàlla jàppale nañ ma si aar bu baax a baax a baax ndax xam na ne moom laa choisir aar bi laa choisir na jàppale ma si bu baax a baax a baax a mu si si encourage dama si conseil dama si ñaanal waaw du macha allah daal dund mu si dund bu neex daal. waaw nekkul am solo mais tamit kooku que dañu gis pratiquement yaa rek mooy bëgg aar rek nekk si saali di di aar rek kese loolu rek loolu mooy sama secret bëgg a aar bëgg li may def aussi tamit di si jàng di si gëstu waaw nekk si saa bu wax ak pa faral nekk nii ba nii nii nii nekk nii di gëstu aar yi rek mooy sama secret du leneen. link ah, link bi nga am waaw link ma la wax fii la ndax man dama teg ak saa rek ñu woo ma ne ma la di ma la waa ñoo di la soxla ma la waa amul problème ñu waxaale. ñu kii moom wax dëgg yàlla kii bureau moom kii safar laa Even Pro day waxaan hasard amul ndax ñoom fii nañ ma gisee côté yi nii waaw ndax dina amoon waaw ndax ñoom fan yii am na fu ne nekkoon doon fi tourné si côté BCEAO bi fan la ma gisee côté yi nii nii rek fan la ma gisee boobu maa ngi def marché di jaayee écouteur ndax parfois damay gis nekk si aar bi aussi tamit amoon na ci loolu dafa xaw a kii dafa dafa xaw a mais dafa doy waar yaa ngi dégg après si laa mais comme que si aar bi yaa ngi dégg bi ma demalee tournage ma dugg si écouteur jaay li ma am li ma am mooy sama wërsëg ma xam nga. ma yem sama bopp moo gën may taxawaal du ñaan affaire ndaxte boo demee tournage mën nga am bala daa demaat tournage mooy loolu te aussi tamit góor am na nga xamante ne moomu ko loolu tax ma taxaw man nekk si am am aminance bi noonu xam nga fa kii eh, avant période ma seen série boobu na wax mërs si laa buur juddu si affaire yooyu noonu affaire bu ndaw daal. mais écouteurs yi yow yaa ngi si ba léegi wala na ah, ma dara. waaw ah, ma dara non naa si nag ma ma ak nawet beeg naaj bu tàng bi xam nga ak ko noonu mais maa si ba léegi nii wax dëgg yàlla maa ngi si ndax moom comme que kii gi daal comme nga nekk daal. mais est ce que tamit mën nga am benn déception maanaam ci cinéma bi par exemple ñu tuddee ñu tëngaloo la ba pare fayuñu la wala li ñu waroon fay fayuñu la dund nga lu mel noonu. bon parfois rek ndax foofu tee bala may bala may dundee bala may tourné yow dama lay wax lu leer nga wax mu lu leer. ñu dem mais xam nga si tamit boo parfois dem ba si biir tamit ñu ne waaw nii la demee affaire mais wax dëgg yàlla amaguma si maison de production yu mag yi mais loolu production ko mhm. si ñoom wax dëgg moom mooy xew normal macha allah. ah. maanaam rek nga xam ko bu baax moo xam la jàppale ma kay jàppale ma si produit yow nga jàppale ma affaire mu dem ba si biir xam nga boo comprendre mais après da xam rek bàyyi si biir tamit loolu la loolu la rek mooy ni ma demee noonu. ah maanaam si biir jàppale da ngay waxaale comme que sa mbokku artiste la. xam nga parfois artiste bi ñuy tourné comme sa mbokk artiste nga ne xaar nga ne ah, dem ñu dem ba si biir mun la waa sponsor amul affaire yooyu noonu kii dugg na fii génn fii après yow da ngay jéem a comprendre ah ñun ay artistes ñoom ñoo mën a jàppalante suñu biir oh, noonu la fa demee rek man loolu laay seet rek comme sa mbokk artiste moom. boo woowee si ne dama la ñëw jàppale dara ndax ëllëg mën naa soxla waaw. Ah waaw wax dëgg yàlla moom ñu may fay normal ñu may fay normal ñu may mettre si ba condition waaw ñu may fay normal moom xam na nag li koy wax mais man moom ñu ngi production yi ma jeu yu mag yëpp ñu may fay normal mais parfois est-ce que doo am benn complexe par rapport ak suñu yeneen artistes yi maanaam sama yoon yi nga xamante ne si euh, nga baal ci kàddu parfois bu la yàlla bindee nee na ñu am nañu xam dañu xool benn jotaay boo xamante ne si dañu ko am xam am dañu xool est-ce que amul benn complexe entre ñi nga xamante ne ñu waaw man wax dëgg yàlla amul complexe entre bokk na artiste mën naa la jox cër nag bu ne bu ñu dajee si benn tournage mën naa la jox cër noppi calme xam nga comme ni ñu koy dundee nii rek comme ni may dundee nii mais moom bu caméra yi tàkkee moom amatul complexe amatul dara lépp lu ma war a joué ak yow naa ko joué ak yow bi mu si pare pare naa si mais man képp ku may xoolaale la aussi tamit yow rek mais man moom wax dëgg yàlla man man stress rek laay dundee man moom moom mooy loolu nag. waaw ah, waaw critique moom dama ko bëgg moom wax dëgg yàlla dama bëgg critique parfois bu mu génnee sax man te li ma njëkk a xool mooy commentaire la njëkk a xool xool critique. maanaam critique dama ko bëgg ndax critique moo lay defar kon loolu laa gis man critique moo lay defar moo tax damaa bëgg a critique toujours damaa bëgg toujours ñu may critiquer waaw loolu critique moom dama bëgg moom wax dëgg yàlla. donc positif daal pour critique nga xamante ne moom moo du bañ critique moom. loo xamante ni euh, ah, euh, ni nga koy gisee dama la gisee damaa ñëw ma jox ma réew mi ma yaay Coco Lala laa def gëstu xam nga Coco nekk benn genre dessin animé ma ne kon ah c'est vrai ndax ñun aussi tamit nekkal xale yi ñu fi nekkal dañuy jouer pour bëggal askan pour bëggal xale yi. xam nga kon boobu bu ko kiiyee tamit dara rôle bu neex la rek nga joué normal wax dëgg yàlla. mais dose yàlla rek sant yàlla xam nga mbiru moom lépp lu ñëw da ngay sant yàlla xëy na yàlla moo ko dogal boobu xam nga gars yi bëgg ko daal ndax. ndax du sama du sama du kàttan du sama dara lépp mbiru yàlla la xëy na yàlla moo ko jaaral foofu rek sopp ma bëgg may xam nga rek mais man moom mooy noonu sant yàlla rek comme noo sant yàlla rek. yomb na yombul waaw yomb na yombul parfois nga ñëw xam nga nu ñëw ni la li jox la tini xam nga nga bëgg si nga xam te ni mosoo ko comme ça ñu la da ngay dugg indo xam nga ak indo ni nga mel nga bëgg si dugg wala ñu la da ngay dem si. kuréel japon japonais xam nga sant yàlla rek grâce à salle bi xanaa salle bi ma nekk bi xëy na aussi tamit moo tax affaire gën a yomb nii daal mais daal xawoon tuuti rek tuuti tuuti waaw tuuti rek. waaw parce que moom moo rek. waaw taay moom dafa tàng aras dafa tàng. tàngoor bi fépp la. waaw. conséquence ah, moo la gën a marqué ci ci série bi wala wala ban nga épisode bi nga def bi nga dana tourné ba ngay Père Fantastique xanaa série kii bi euh, mooy Inde bi damay dem damay dem tubaab bi man ma joué Inde bi boobu daal moom gën a apprécier foofu noonu ndax waaw bu ma damay dem Dubaay waaw moom mu a manqué ndax da nga koy jëjëf ak ne neex daal macha allah waaw. Euh, waaw maa ngi fekk ñu kàmm gars moom di leen ay gars yu baax nañu macha allah ay gars baax nañu gars yu cool xam nga bu pare mën nañu def macha allah boo joué ñoom da ngay boo ne yaa ngi joué macha allah ay ndaanaan. di leen ñaanal jàmm ñoom it xam nga mais lu ñuy dund naaj si maanaam dund ku maanaam wax dëgg yàlla ay borom baax nañu waaw. waaw ñoom moom buy jóg ay naanaan élève buy jóg ay naanaan xam nga day day ndax. ñoom ñoom lay jox da nga ñoom it aussi jox ñoom du la koy delloo xam nga loolu neex waaw allah ñoom daal ay ndaanaan noonu daal fii ak ndaanaan dafa neex. neex waaw mooy le football bi moom mooy comme ni ko waxee nee rek xam nga Sénégal ku mokk ñaari da ku mokk ñaari aay rek ñëw ni marabu la wut ay deram ak ay xobam ak ay kéem am ndoxu géejam ñëw naan waaw marabu la affaire yooyu xam nga si yooyu ne jàng rek pour nit ñi pour si xel aussi tamit te am na mooy comme comme ko expliqué rek naa nit ki parfois di nga xëccu dara di nga xëccu dara mu fekk si la. boo xoolee commencé filo bi maa ko bàyyi ko ko laalaay noonu tuuti te xamoo woon sax ko ko laalaay waaw di ko tudd di ko tudd ba far affaire doo royal bi suuf waaw royal bi suuf mooy li wax nit ki papa di nga xëcc la nga xamante ni mooy loolu day ëpp si par si yow waaw. waaw waaw loolu moom moom mooy loolu rek ndax nit ki moom wax dëgg yàlla président li man damaa moom lépp lu ñëw la ak lépp lu la dal rek jëmal ne la ndax doomu aadama lu mu lu mu du ànd ak ndogalu yàlla du la dal lu mu jëm si yow du ànd ak ndogalu yàlla du la dal du jamais kon lépp luy defal lu gëm yàlla mais di dem si yenn sëriñ dëgg na am na ñu mën wax dëgg yàlla am na sëriñ ñu mën am na sëriñ ay macha allah mais du ñëpp nag xam nga mais di fa yóbbu sa xaalis wala di fa def sa xaalis pour daal ñàkk xel la daal ak ñàkk gëm yàlla wala ñàkk wóolu yàlla la daal ndax lépp daal boo ko baaree boo ko baaree si rek incha allah lépp sotti daal waaw. mais est wala foo. dans la man yooyu sax dama si dox par rapport ak yoo xamante ne noonu mu góob ma ko wax seen wax naa naa ñëw daal nga ñaanal ma nga ñaanal ma ma jox nga dem sama yoon mais jox naa la ay pino mi leen ma nax mais a la kooku laay laay kañ lay takk jabar yàggatu. ana xale bi. xale rek wala fan incha allah yàggatu waaw incha bu jotee rek daal ko incha allah la incha allah la incha allah fan doole incha allah kay xanaa nag <laughs> takkuma bant wala takkuma sareet wala takkuma. dama la moment bi ma dama la incha kañ naa takk kañ. waaw dama la am naa jabar. waaw dama la incha allah takk kañ. yow de takkuma termus <laughs> banta takkuma kii xëy na li mu takk kañ n'est-ce pas. amiin amiin dañuy delluwaat ginnaaw fii direct maanaam ci li nga xamante ne moom moo di sa sa sa sa sa gone mën nañ ko maa ngi dégg bëgg mën na la wax xam naa mën ko muy li nga xamante ne moom moo di doxal waaw bi nga doon doxal xale yu jigéen naka lañ ko dundee parfois nga ñëw doxal am déception wala wala wala wala dañ lay accepté wala la ma ragaloon la ma doon doxal la ma ragaloon bu nii la ma doon ragal ah doxal ñoom ñu de yëf yi yombul de gaa ngay sa bëgg a yomb rek doxal yombul de. jottam yombul de doxal doxal yombul de gaa ngay kii nii doxal yombul de. lan moo di gis ci doxal nga gis nga bëgg ko nga aborder ko lan moo si metti. lan moo si metti. waaw dara xam nga dafa yombul sérieux yombul. nga gis nga bëgg ko maanaam amoo fit comme ni nga ko waxee nii da nga ko non parfois nag naa ko wax li ma sama xalaat mais yombul de waaw naa ko wax ne dama la bëgg nii nii waaye <laughs> doxaan <laughs> yombul <laughs> gaa yi ko bëgg gaa yi ko bëgg a yomb dara nga doxaan yombul voilà il faut nga takk il faut nga dëgër fit waaw non non kii moom tàmmu ma ko sax naa tàmmu ma noonu waaye doxaan yi nii moo tax suuraale ma ko sax sama xeet waaw solo macha allah xam naa nag yab naa la bi nga bi nga ñu kii dafa ma ci nga xamante ne bi dëkk bi yëngu naka nga koy waaw wax dëgg bi moom bi buñ si bëggee boole ak histoire affaire yooyu noonu doo daal damay wax politiciens yi daal nu yërëm askan wi daal politiciens yëpp nag mooy ñu nekk si pouvoir ba ñu nekk si opposition bi daal nu ñu yërëm askan wi daal ndax lii moom wax dëgg yàlla metti na ñàkkum otogaay yi nii tàngoor bi nii ah, ni ñuy dee si gaal yi aussi tamit nga bëgg ko booleeg histoire politique tamit man daal Sénégal daal doo comprendre daal te doo xam lan la doo xam lan la daal man daal Sénégal daal man nu may jàmm daal man nu may jàmm politiciens yi waaw nangu lay jaam bëgg lay jaam ci soxla nañ ko bu baax a baax te moom lañ xam ne dañoo ne mooy Ousmane di vol portable mu amal contentieux ak ñi nga xamante ne moom moo boobu ba rek dindi ko ah. toujours après ñu daal di koy jàppaat ko jàppee vol portable vol portable loolu da leen ñëw leen loolu de portable <laughs> Boleh saya tahu kan? Alhamdulillah. ah xam ñoom ñoo ko bind. Ah, ñu liir ko noonu. noonu jàpp noonu. Hmm? noonu jàpp noonu eh, la. ah doy na waar daal portable ko fàcc wala bëccëg. wala ah bëccëg la parce que après la <laughs> ëppal portable la wala da ngaa tafal da ngaa waaw da ngaa tafal wala portable da ah, ah, eh? ah, eh? na sa ci portable da këf si scooter wala comprendre buntu kër la lépp xewee daal dégg na buntu kër bu portable donc yàlla wala fon ci wala ay fon xam nga exactement yaa ngi lay dugal nag xam nga exactement lan la nag. ah saa si portable loolu la de. ñoom loolu la ñu bindee. waaw loolu la ñu bindee. doy na waar daal. doy na waar ah xëy na daal waxaale na. waxaale na. ah saa si portable noonu de. maa ngi poos. yàlla baax na. yàlla baax na. daal ñu bindee waxaale na. da nga bëgg a wax foofu que ni que ni que ni yow saa si portable daal jëmu kii daal. ku toll na Ousmane Sonko teewal mu naraw laaj réew mi ñëwee dafa sàcc portable tamit ah xëy boog leneen ñu ko bëggoon waxee boog wala kii mais ah doy waar daal yal na def jàmm daal si dëkk daal doy waar daal. <laughs> waaw man problème mooy foofu nag la may wax jeunes yi maanaam mooy ñoom problème bi mooy ñoom jarul yàkkamti problème mooy ñun jarul yàkkamti dama xam ne nit ki la yàkkamti sa wërsëg li si tere yow moom parfois nga dégg ñu ne xaw ma pour nga dugg si gars yi da ngay joxe ay trois cent mille wala ay quatre cent mi pourtant quatre cent mille boo ko investi fii nii nii Sénégal wóor na yàlla mën nga am dara mën nga am dara mën nga si jàpp dara mais doo bëggee di jël ay gaal yi nii ak ak géej ni mu mel ak géej ni mu mel nga dugg si gaal fekkoon sax si ay bato weñ nga dugg sax garaawul mais ay gaal dénk ak ngelaw li xam nawet bii nii nga nga dugg si gaal pour man loolu daal wax dëgg yàlla daal am nga xam daal xamul loolu si xamul loolu si xiir xëy na nag situation mooy si dugg mais ak man situation lu mu métti métti métti métti métti waroo jël sa xaalis naa da dugg si gaal bi kon wax dëgg yàlla loolu moom dugal ma fa benn jeune waaw dugg si gaal gi moom dugal ma fa benn jeune métti na trop nag xamu leen nag lu may fi xëy na tolluwaayu àdduna wala situation mooy su mais daal wax dëgg yàlla jaru ko daal jël sa xaaji dugg si gaal gi nii moom dugg si géej te géej amul bànqaas xam nga fooy teere parfois mën nga dugg gaal teere fu la neetoo xam aussi tamit nga dese àll bi te néew ñu suulee ko fenn tamit dafa rafetul daal dafa dara daal daal daal man de dugal ma fa kenn daal te may wax daal yal na fi yal na fi dañ yàlla na fi yem. mais à parfois dañuy dañuy dégg certains sénégalais di wax ni que loolu yëpp man non mënu ma gëm ndax gouvernement bu doon soxoon Sénégal ñëpp am liggéey bu doon soxoon mu jox leen liggéey mais aussi tamit mënu ko buñ ñëpp naa leen wutal liggéey tamit day wax politique da nga mënu mais yow mi nga xamante ne liggéey nga liggéey ba am 500000. pour man boo ko continuer daa am million milliard sama xalaat man boo toogee Sénégal liggéey ba am 500000 yore woon dërëm nga liggéey ba am 500000 pour man doo si continuer di nga am milliard bu ubbi entreprise am ñoo xamante ni dama la fen senegal gën a yem si ñu ngi ubbi entreprise mais pourquoi pas ñun mënu ma gëm suñu bopp ubbi entreprise fii Sénégal mais du toog naan gouvernement gouvernement ba kañ ba kañ ci xaalis boobu nga duggee gaal boo ko investir woon fii nii di nga am lu bëri. moom moo waaw ah, macha allah euh, restaurant moom kalma na rafet na te aussi set na si si noonu allah daal waaw aussi tamit ay accueillante yu baax nañu accueillir nañu accueillir bu rafet macha allah xam rek ñëw mu ñu la dama nga toog fa nga def ci émission loolu dafa neex loolu dafa rëy waaw dina ñaanal càmm affaire bi gën a yokk daal yokk ba yëkk daal macha allah waaw. di wax alhamdulilah di tàggatoo di wax ni maa ngi nuyu ñëpp di jégaluwaat si kàddu yi lépp lu si dégg ngeen xam ne man la lépp lu si ngeen xam ne sunu borom la eh, di nuyu sama jigéen sama xarit macha allah di ko ñaanal jàmm moom it yàlla ko yàlla yokk ak sama caméraman bi yàlla leen yàlla yokk macha allah ak waa kër gi yëpp di am mbégte bu baax a baax a baax si Dakar. Dakar Dakar plus euh, la CND leader la ñu wax macha allah aussi tamit dina nekk CND roi waaw mun na ko yàlla ko def macha allah daal yàlla leen yàlla defal jàmm di am contentement bu baax a baax baax baax loolu wax ni seen mbokk seen xarit El Hadj Kaaf Asmalik mu noonu daal kooku laay laay. bu baax a baax. ayca fidèle internet comme ni ngeen ko gisee rek nii rek leen koy defalee à chaque fois bu ngeen jàkkaarloo ak ñoo nit leen tegal ngeen xamante ne loolu ngeen bëgg loolu ngeen di bëgg a gis ah, tey nag ñu indi leen seen xarit seen doomu nday koo xamante ne si foo ko teg rek ñëpp di ko apprécier ñëpp di ko bëgg amul bi nga xamante ne sénégalais yi am ko ci moom macha allah ah, def ci moom baax goo xamante ne si nag kenn mënu koo xam ah, ba tax na ñu soxla ko rek mu bàyyi li nga xamante ne moom moo di ay itteem ñëw fii nga xamante ne moom moo di restaurant Moussa Chakour ñu fi defee li nga moom moo di région bu Yandji bi macha allah ngeen gis place bi nag ni mu demee di leen wax ni leen daw si leen gaaw ngeen ñëw fi nga xamante ni moom moo di Bessayaaw lépp loo leen bëgg rek euh, soo leen ñëwee di ko fi am et ñi nga xamante ni ñoo fi nekk macha dañu accueillant euh, baax ba nga xamante ni si kenn mënu ko expliquer ma àndoon ci ak nga xamante ni moom moo di Ibrahima Fara Sow Serigne Sall moo leen nekk leen ci micro bi. Amis internautes, salaamaaleykum veuillez vous abonner